ñaan may ñaan waa may ñaan état bi ñu yibbi université xale yi dem jàngi nañu yibbi université yi booy yi dem jàngi. kon li ñu ñoom argument yi ñu joxe. convaincre non no c'est pas non dama ne may mun a man sama doom yi ñu ngi jàngi sa doom yi ñu ngi jàngi ñoom seen doom yi ñu ngi jàngi nañu yibbi université bi xale yi université yi xale yi dem jàngi. ministre bi nee na ñett. calcul calcul électoral dong. moo tax ñu tëj université dañ koy bi ah, xale yi ne dañu ragal a tijji université yow kii may mun a may mun a hmm.